ji de ikiri waalo la ne mbokkam ndeyam la dëgër la ak liiru jaan moom Alioune Seye 2 eh jëlal ma la dëgër ca ginnaaw victoire a neex ma nga ca état de jëlal ba muy neex Alioune Seye 2 Baye Fall bi la Alioune Seye Senior moom la tuddee boppam jëlal waaw ndeysaan eh Baay Faal la Baay Faal la ah waaw waaw jëlal Lac de ma nga toll ni ñaay de jëlal ñaa bu ndaw roona ngi noonu coach ba ndeysaan ci Sunugal 24 Sène Junior a Géejawaay ji jàmbaari Njaareem ji maa ngi lay siyaar doom. ziarat ci ne lépp jàmm. maa yaa ngi si jàmm. maa sant Serigne Fall bu wér a wér. mais am na noo ñëwee tey. waaw xam nga waaj nañ bu baax a baax a baax waaj nañ bu baax a baax ñaan yàlla a ñu dam quoi comme dab rek. Bour mu ne da laa dab ci yoon wi te da lay dem yoonam. non moom dab ma doom ci defet la jóge man ci victoire laa jóge. man naa ko diggante général Malick. ak limousine tegal limousine. waaw waaw jaanat rek kon waaw kon kon koy maa ko may sens moom koy dab ma daa daanu ma bañ a bëree moom booleeg moom yàlla ma yàlla may ndam ci kawam rek. mais xam nga combat bi a mu laaj. waaw ba laaj na bëre laaj na xeex ak def naa ko vigilant nga xam ne tout ça mais yàlla baax na yàlla ñu yàlla may ndam. nee na day xeex yow open press am. waaw la wax loolu la wax mais taw feex mu wax rek garaaw. kon ñun préparé nañ lépp. waaw wax am ko xanaa koo xamul ku la xamul ngay wax. non ñun lu ñu xeex dañuy bëre. yow mii. waaw li ngay wax. seetaan naa la Iba Mar non mun na waaye nekk mun na nekk bëre mun na doon lépp mun na nekk quoi. daa mel ne da ngay sàkket. non lu ñu mën ndam. da nga may topp nee na da nga may topp mën a sarax ci biir kër gi. gàlle yëpp nuyoo tey gàlle bawol nuyoo kër bawol kër bawol bawol yi nuyoo nee na jëlal bawol bawol yi nii lañ ñëwee xanaa lii ci horaire bi la joge sarax ci biir gàlle bi maa ngi siyaar borom kër gi. bu wér. kiloo ne Bour Sine. fils noo ñëwee tey. waaw comme ni ma daan ñëwee rek ànd ak samay mbokk entraîné. Uh-huh. liggéey. Uh-huh. di ñaan yàlla may ñu ndam. ma seen mu ne da ngaa daanu mu jël la moo la may sens. non mën naa wax moom may sens mais man d' accord ma ne moom may sens parce que dafa géej a bëre man maa ngi compétir chaque jour. daana na fi limousine kat. waaw Ibama daana limousine ak léegi bëre naa fekk bëre naa fekk bëre naa bala bëre fekk mama uh-huh. bi lu mu laaj. bi lu laaj rek teg teg woon la yoon. waaw mais xam nga li mu laaj carrément. xam naa ko bu baax am naa ko ay expert ñoom Guèye Diouf Elimane Sarr Fallou Ngom sunu grand ay expert yi la am laa àndal. da ngay xeex ndax da ngay bëri. lépp lu mu laaj rek. seetlu nga ci dóor mu daan wala ci bëre la jeex. saan dépassé Mbaye Diouf lu mu ñu wax rek sunu grand ñu def ko. ñii ñooy waa Bawol ñii ñooy ànd ak Bour ndaanaan yaa ngi nii nee naa la bu jógee waa Bawol jóg tey mobilise. amut sëral ndam li Bawol la jëm. dañu koy yóbbu. bawol yaa ngi nii kenn duñ kër goo dem rek ak la nga fay fekk geneen kër ngi kii Baye Fall bi la ñàkk jariñu borom caaraay mbooloo mbokam ndeyam maam Cheikh Wade bu torom poor poye ñàkk jariñu ci loo ne waaw santaat yàlla bu baax a baax a baax a baax di julli teen di sant sama ñaari waajur bu baax a baax a baax a baax ñàkk noo ñëwee tey waaw ñëwu ndam rek dugg ak ndam génn ci ak ndam ci kàttan bu borom mais dama gis nga ñëw confiance bu bëri waaw c'est la différence xale la liggéey naa samay mbaq topp nañ ci man lan lay ragal mu doon te biñ jot ma jaaxal. gars yi nee nañ ki ngay bëreel mooy technicien wu Guédiawaye. waaw man may borom force force éliminer la technique c'est ça le ndax da ngay xeew wala da ngay bëri. waaw seul la terrain kii commande. temps yii tubaab nga nag. waaw waaw dafa jot dafa jot bu ma wane sama bopp dafa am lu ma war a wane. Uh-huh. kono li nga wax rek nee nga ñàkk boo bu ma daanee waa ji nga xam ne ndeysaan du ma nit waaye tey la confirmation bi. waaw li ngay tey ngay comprendre xam naa ne comprendre nga sax parce que dun nga làmb waaye tey ñu bëri tey la ñu comprendre xamen tey lañ xam ne maat ak force wute na. maa ngi lay jox rendez-vous. kon ngoon si kàttan suñu borom groupe ba. ànd ak Cheikh Niang doom Boy Niang. xaarim tam bu xewlee. rajo Talla xewlee yow nga xewle maa war a am déet yéen. yéen a dëkkal lamb yéen a ñëw fu ne mais Racine Talla bu xewlee Khadim moo xewle Khadim Samb boo xam ne Racine Talla moo xewle. Racine Talla géej maa ngi lay coow géej géej te mi coow géej boobu da ngaa baax man daal dugg ne ndax Khadim Samb Samb xaali Samb xaali rabi naar ak bu ma naar ma ne waaw. bu waaw ñëwee la a ñëwee la waaw te yow de yàlla la yàlla dafa jëm ndax la ngaa ñëw Père Khadim Samb. ndey ndeysaan ndeysaan Racine Talla ñu ngi koy nuyu. Sunugal 24. Sunugal 24. bu a da ngay juum. Sunugal ñoo ko moom. waaye daanaka rek moom 24 décembre sorewul ndax 24 décembre tey. feetu feetu àdduna bépp la. national waaw kon 24. seen 24. Ah. kon xam nga ne 24 dafa ëmb lépp. seet seet li mu woy léegi fii seeram dawul yow. waaye Ousmane Mbaye tey sunu baay xewle. waaw Xaadim Samb sunu baay bu ah. xewlee war naa der ñun ñu war na fekk tey ba xotteeku. Fane Ndiaga li mu yuuxu sànni yàlla ngaa jaay doo lay bëre. waaw ñu war koo bàq. waaw kon barke Rasulaay Fane Ndiaga yàlla na ko defal jàmm. amiin waay Ousmane Mbaye. yàlla sunu gaal sunu gaal benn nag war ngeen maa woo fan yii nag kër gi dara ne fa mu ngi saxaar waaw. Maodo Kano moo ñu won ginnaaw moo yor ngemb boobu bi boo moytuwul di ngeen mi tanteel ci waat de attention caxabal takk Maodo Kaana takk ah Fils de Max dindi ko dafa doole de xale la attention tas eh, <laughs> waaye Fils de Max jëlal père Max papa tarkindaa yi jëlal jógal oh, oh, oh. léegi na ko papa tarkindaa yi nangam sant yàlla bu baax. toujours làmb ji tijjee nga tey nga ci dee amateurs yi loo gis tey. waaw li gis mooy euh, dañu am ku nekkoon si ñun Xarim Samb di amateuru làmb di reporter bu mag ñépp xam nga rajo Sud FM mu mu retraité mu jógee Sud FM dem RTS ba retraité yàlla def mu dugg si promoteur tey muy première journée dem retraite. stade bi fees dell na. waaw si suba maa ngi koy wax ki doon defal ñi doon defee stade ma ne leen ñetti looyoo bi yëpp parce que ministre bi loolu la waxoon. waaye ñu demee stade bi mënul fees ma ne ko ñun làmb day mën na fees dell fii ngay nettoyé ni mën na fees kon nett nañ leen nettoyé stade bi yëpp tey ñi nekk si biti ñoo ëpp ñu nekk si biir mooy wane ne làmb te sénégalais yi bëgg te xaadim am keroog li ma wax amateur rek ñëw leen wuy si xaadim parce que moo naan ñu bégal si rajo di ñu bégal si télé tey lii rek lañ ko mën fayee. day bàyyi yitteem yëpp ànd ak man di ma jàppale ci samay làmb te ma nag ndaxam nga jigéen bu nekk si ay góor su su ko yàlla dimbalee ba mu egg fenn fi rek góor ña muy àndal ñoo baax te xaadim dafa bokk si ñi nga xam ni dañ ma jàppale dañ ma accompagner ma eh, et puis boole ma ak ay relation yu baax a baax a baax ba pare orienté ma nag ma gën a am jom gën a góorgóorlu kon tey jii mais dañ koy ñaanal di ko wax nag chaque année rek na koy tëgg ndax am na solo stade bi fees na dell kilifa yëpp ñëw wuyu si nañ ko ndax loolu la lebal loolu la lebal doomu aadama yi. mais gis nga ma tey. dinañ la gis. waaw mais mais gis nga ma tey. daa nga tëgg làmb. mais Ndeye Ndiaye tey sa mënut a bàyyi làmb maay làmb. saison bi tëggul làmb. waaw saison bi nag xam nga dafa am liggéey yu bëri yoo xam ne dama si nekk et puis toogatuma euh, te làmb dafa fiir il faut nga mën a toog concentré wu rek pour mën a tëgg làmb mais maa ngi si biir làmb ji. di nga ñëwaat. soobee yàlla. jot garaan ak moom làmb yu yàgg rek lay bëri. waaye gaaroo gaar. lim fi indi ci mbooloo. mbaa ma ne la saxaara koy daw mbaa ndaw lu sawar tabar. déedéet bi ndaw la dëkk. maam booy moo ma yar. daf ma ndaw lu eh, sawar tabar. dama jugal nga dem nafar sët bu jubtu ragal xaxar. géwél nga nag mënul ñàkk. hey doomu nday coon. waaw nee na ana coon day Alboury ana coon coon a ngi fi coon nekkatul grand mi mi ngi fi lu mu wat dëgg la gaaro gaar coon kara ña ngay xeex jël ba buub na ko daan ko daan na ko gaaro gaar daan na ko yow da koo jël daan ko xoolal kaay xool mbooloo ci gaar bi lay taxaw witi sa bay jëti lam na ko ñaasa to mu bay ba tumayi nay ta na waa war a daa mel noonu. waaw ku njam mbaanu suukar yaa woo weñ yi. taalu te ndaam daf tege de. doomu gaynde gaynde jur ginaar ku li koddu doo bargeej ma ngoo xel ma taat naar géej bi la ma saa ma taat binta binda faa maa ko waxoon wax ko waxaat ko e waay bukki ñuusam ma ee la bukki bàyyi leen seen yaa ba di ca laale laale mooy baaxu góor bu doon lambi jigéen sax jeex na lamb bu ca góor nekkul jigéen koy moom way bu sin man day nuyu naa sañ yaa sin sin be ma xëy la xala mala rabat na ay leen seen yaa ba de ca laale laale mooy baaxu góor bu doon lambi jigéen sax jeex na aaye lamb bu ca billaay laa la la Laaji Njaay nuyu naa la góoru Marème Njaay moom doo aaye lamb bu se laa xala balaa rabana ana séeri Alaaji Njaay man Marème Njaay laay balaa dara li ma la wax rek violence baaxul ci làmb ndax lii day yàq làmb ñun suñu làmb dafa am problème ñu koy ñu koy réglé ñu gën ko yokku lii dafa rafetul ñëpp dañ ko ñaawlu wala nit ñi dañoo a yaru nit ñi dañoo war yaru xale yi lan war a yar ndax lii ñu def nii ak yaree du ko la naay suñu quoi parce que Serigne Touba. maa ngi doon dégg Bargny waaw dama ko doxal la 15 mars diggante Bébé Daaru ak armée bu Ngéwél ñu woo Sénégal gépp di ci woo ma làng sama xarit bi Balla Samb président Ngéwél famille di sama xarit di sama doomu ndey ak Samb mi nga xam ne ku la xam ne mi ngi waaj non bis doxul ci diggante bi vraiment mi ngi waaj moom lu rëy muy diggante eh, diggante général général bu Malick général général bu Fass ak fan Coly Faye kon ñu ngi ci wax Sénégal gépp di ñu wax ahlu làmb Balla Samb ngi nii xarit la man de moom Balla Samb la ziar naa la ku baax li nga gis nii est-ce que nekkul lu yàq da koy yàq du ma ko rafetlu man dama mus a contre ñu naan làmb dafa bëri violence mais tey dama am gàcce tey dama preuve preuve am preuve la preuve violence xeex. violence bu ëpp dayoo la bu ëpp dayoo vraiment lii rafetlu wu ma ko dara ci làmb. waaw ah, lii ñun rafetlu ñu ko moom la ñuy waxtaan léegi maag Baba vraiment day saboté kër làmb tey boo gisee làmb ju mel ni tey lu mel ni violence waru ci woon a feeñ vraiment day mbëri ndaw yi bëri na lu neex amateurs yi ñëw supporters yi ñëw. vraiment Xaadim Samb daf lu rëy. waaw wax dëgg yàlla ñoom laat gaa yëpp. xam nga vraiment liggéey bi rafet lool waaw comme que mujjee na ni daal nan sant yàlla bu baax mais bu ëllëgee ñu gën a yokk sécurité bi gën a jàppalante amateurs yi aussi yaru vraiment supporters yi yaru parce que lii rafetul lii moom ñun rafetlu ñu ko dara. bëri lii a doy na waar doy na waar comme que Alioune Sarr fi moom dañuy jël lépp. non Alioune Sarr fi dañuy jël lépp te bàyyi ko ci rek yàlla baax na. <laughs> wala jawaagali waaw waaw. 4 avril. du yomb comme ni ma la ko. qualifié général loolu moom defe naa boo xamante ni. fii koy waaj. ndaw rabine Gumbe boo bëggee cosaan la 4 avril na nga a ñëw non lu leer laa la di nga gis lu doy waar. lébu caaro yi lébu caaro yi. lébu caaro ceeb bu neex. lébu barñi mbuur ñëpp la ñuy dajale indi leen fii bu soobee yàlla. jaajëf. buur seen bi mu fi jógee fii woon Mama Lamine moo ko daan Eumeu Sène Junior bi mu fi jógee limousine la daan arbitre baa ngi wax ak ñaari mbër ya li làmb nangu ak lam bañ grand combat baa ngi nii deuxième grand combat Khadim Samb ñu fi woo retraité liggéey ba bàyyi buur seen arbitre soxla na Eumeu buur seen jóge ci defet maama Lamine naka daan Eumeu Sène senior jóge ci victoire Limousine la daan Sunugal 24 Assane Ndiaye bool Mass Bantamba arbitre baa ngi wax ak ñaari mbër ya suuf la dina génn seen diggante buur sin Eumeu Sène senior da ngay lewaatoo ñaq jariñu mel ni mi moom bëriwut wuli dëngi ni mooy ni buur sin buur sin cokkaas na waaye Wouly 2 gis naa Mama Lamine tëkk ko Double Tyson tëkk ko Wouly 2 dafa jar nag. retraité lay fet retraité amoo seen ña ngay xeex Bour Sine amoo seen junior dañuy xeex ne lii maa la ko wax nen pindal raak bi mënul ñàkk de Bour si door na dooraat Bour Sine amoo seen guy gi moo indi amoo seen junior. joon toogul taxawul ak a bëgg Bour Sine ña ngay xeex Bour Sine mooy seen kenn mu daanu jël na tàng ba na Bour Sine mooy seen senior jàppante ñoom ñaar Bara Dione toogul taxawul Wouly 2 toogul taxawul Dieye production ama seen senior Bour biir ñëw nag Dieye woo e ña ngay Caatu Yoff mooy bëre ak Bébé Diouldé ña ngay xeex Badou Ndor kenn mu daanu ña ngay xeex Bour Sine mooy seen siñoor xeex jàppante waaye combat bi neex na ama seen siñoor ak Bour Sine da ngay xeex seen biir jar na siñoor Bour Sine ndeysaan maa ngi bëgg Ambu Jackson Papa Demba Bour Sine a ngi Mor bu Parcelles Bour Sine Eumeu Sène Junior Alioune Seye 2 ak ñàkk jaruñu te ñoom bëriwuñu lamb ja cata ca dugg rek cat la rek cat moom dégg naa bu rëyut sembal Bour Sine Eumeu Sène Junior jàppante wax naa la Eumeu Sène Junior bi mu fi mujj limousine la fi daan Bour Sine bi mu fi mujj maama la mi daan Bour Sine Eumeu Sène Junior Bour ñax jariñoo noonu arbitre àtte na Bour Sine Eumeu Sène Junior Bour Sine Eumeu Sène Junior deuxième fi woo nen caatu Yoff mooy daje protestant ba dañ na caatu Yoff ak Bébé Diouldé ñoo fi dajee la wa Eumeu Sène junior Bour Sine dóor na ko arrêt de droit baaru dund dóor kenn daanu xeex ba metti na Eumeu Sène junior Bour na ko jël ko jël ko jël na ko jël na ko jël na ko Bour Sine lum nar saako ya Eumeu Sène junior na Bour Sine Eumeu Sène junior na Bour Eumeu Sène Junior na Bour Sène na ko deuxième victoire Bour Sène na nen ne buur ba daanu na Mass Bantamba buur ba na